li gouvernement bi wax pour yow c'est une réponse à la situation. jëm. Mm. ma ne ko maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam. Mm. Euh, wante li nga xam ne moom mooy constat bi am. Mm-hmm. te képp koo xam na ne que waxuma sa acteur politique nga nekk sénégalais te avenir nation bi kase ñor la benn sentiment dong nga ci mën a am muy un sentiment de déception amul lenn loo ci mën a am parce que format bi. Mm. wax na ko léegi sur la forme. Mm-hmm. il y a énormément de choses à dire par rapport à la forme mënuñu nekk une république mhm. en sachant que au sens grec respublica mooy mhm. li ñëpp bokk Sénégal am une très longue tradition boo xam ne nekk démocratie yàlla xéewalee ñu ñu am ñaari alternance yoo xam ne ni que Afrique bi yëpp daf ñu ko ñeewee nga am en l'espace en moins de deux ans ay événements liés à une instrumentalisation hideuse de la justice am le président de la République na prend même pas sur lui la responsabilité mu génn par respect wax ak askanam j'ai di c'est le premier élément boo xam ne sur le plan formel dañuy jàpp na ni que dul yoon kon yow pour yow premier ministre non premier euh, ministre président ci boppam moo waroon a wax premier ministre pouvoir am ci président de la république la koy jëlee président de la république moom mooy incarné di symboliser institution bi nga xam ne ne que moom la askan Sénégal yépp jox ko parce que contrat social moom moo tëral mode de désignation ba ñu am un président de la république su dara dalee askan bi maa menacé askan bi kàddu gi nga xam ne ne que moom lañ doon xaar kàddu président de la république la pas kàddu première ministre encore moins kàddu ki nga xam ni pour man il est le plus disqualifié au Sénégal tey pour wax ci fee yi muy Ismaïla Madior Fall parce que li xew moom moo ñu ko dikkee il faut ñu analyser froidement lan mooy cause yi cause yi du ñaari sénégalais non non non c'est être pour man assez superficiel mais waxuma la doyen Gaye je bu respecte beaucoup je parle d'une manière générale c'est être très superficiel que nga jël li xew nga ni ces deux citoyens Ousmane Sonko Adji Sarr ñoom ñoo waral li déedéet li ko waral c'est d'abord une aspiration aspiration mooy bëgg-bëgg une aspiration très profonde des Sénégalais au respect non seulement de la parole donnée mais au respect di fonctionnement de nos institutions institutions li waral lii lépp mooy le fait que sénégalais yi dañu soupçonné gis ni am na koo xam ne daf ñu jiite mu def ñaari mandaam mu jàpp na ne que doyu ko dafa yootuwaat benn troisième mandat xoolal tout ce que le régime de Macky Sall a en termes de persécution lenn doo nga ko waral lame de fond bi mooy troisième mandat du leneen loolu mooy lame de fond instrumentalisation de la justice troisième mandat la volonté d'éliminer systématiquement de potentiels candidats à des élections présidentielles troisième mandat la l'instrumentalisation de nos institutions troisième mandat la et le hic c'est que ñu ñëw ba yegg nag ci fi nga xam ne ne que moom mooy terminus bi mooy génne et crime de lèse majesté ce que les Sénégalais pratiquement no connu que sous Macky peut-être parce que jamonoy Senghor fekke wuñ ko ñun muy l'armée muy dem bay sécuriser yenn édifice lorsqu'on en narive à ça doyen ce qui est interpellé c'est notre conscience non pas en tant que partisan politique mais en tant que républicain j'aimerais que ñuy wax ak askan bi ñu bañ a ñu jël suñu casquette politique summi teg xool la république sénégalaise en tant que tel ban crise yan soubre soubresaut la traversé ak nan la ñuy def ba li xew bañ a amaat procès entre deux citoyens sénégalais lambda chaque jour mu am lundi y des procès entre des citoyens sénégalais le vendredi tey bii y a eu au tribunal des procès entre citoyens sénégalais mais pourquoi bii dégénéré li ko taxa a dégénéré mooy li nga xam ne ne que moom moo ko umb parce que et nous on est très bien placé pour en parler parce que Khalifa Ababacar Sall a subi exactement le même acharnement dañu yónnee benn mission d'audit politique intenté ñu un procès politique jox ñu un verdict politique defal ñu un emprisonnement politique génneel ñu une libération politique te loolu su fekkoo ne dañ ko répété rek ci kali ci xalifa répé bugg ko répété ci Sonko mën na nañoo noppi mais dañ ko defaat sax Karim parce que quoi que l'on puisse dire même su fekkee ne dañ naan la en 2012 c'était une exigence de la société sénégalaise mais la société sénégalaise n'a jamais dit en 2012 parce que on était là que il faut une justice sélective mosuñ ko wax dañ ne il faut une reddition des comptes mais bi ñuy wax reddition des comptes waxuñu une réduction sélective des comptes mosuñ ko wax regardez liste CREI yi ak ñi ñu ko ne moo lay won ni que loxo bi ndam ne dafa condamné ki mu buggoon a condamné exilé loo ko ñi mu bëggul woon ne maa ñi négocier ñu delloo leen ko je suis au regret de le dire doyen et ce n'est pas une fierté notre pays a fondamentalement régressé sous Macky Sall Notre pays a régressé sur le plan démocratique. Notre pays a régressé en termes de liberté d'opinion. ñaata journaliste tey ñoo nekk en prison lan mooy seen toor benn toor lañ am ils ne disent pas li prince bëgg a dégg muy Macky Sall ñi journaliste yi wax ce que le prince veut entendre personne n'a intenté contre eux des procès il faut qu'on ait le courage de nous regarder droit dans les yeux et de nous dire certaines vérités adviennent que mais li xew ba xew et RSF le confirme parce que suñu demee ba Sénégal dépassé ci en termes de rang classement RSF Reporters sans frontières pratiquement cent quatrième ça veut dire que am na loo xam ni doxul tey ñaata prisonniers politiques lañ am et j'aimerais bien que ngeen wax ñu parce que philosophiquement sociologiquement psychologiquement mënu leen fi indi benn définition boo xam ni cadré wul avec ce qu'on appelle un prisonnier politique un prisonnier politique c'est quelqu'un qui fait de la politique boo xam ne ne que dañ ko emprisonné sur la base de ses opinions politiques Bassirou Diomaye Faye nous ne sommes pas du même bord et je suis très bien placé pour en parler parce que kenn mënu ma soupçonner par par loo lan moo ko yóbbu prison opinion politique am opinion politique am Macky Sall li Bassirou Diomaye fay wax mais Macky Sall a dit pire à Abdoulaye Wade personne ne l'a amené en prison le maire de kër Massar Sud on le soupçonne de quoi Mohamed Bilal jaata on le soupçonne de quoi d'action subversive mais on oublie que lorsque nit ñi bi ñuy xeex pour que Abdoulaye Wade jóge fi la jeunesse qui avait suivi Macky Sall certains s'en rappelleront mës nañu fee yee minuit ne ñu ay étudiants dañuy waaj def coup d'état avec des pneus c'était en 2011 tey on se retrouve dans la même situation où presque on accuse des gens de faire des coups d'état sur la base de quoi cocktail Molotov à quoi d'autre encore force occulte Toujours est-il que se force personne n'est capable encore de nous mettre un non La seule chose boo xam ne c'est pas occulte et c'est au vu et au su de tout le monde muy les nervis donc nañu ñëwaat encore une fois ñu jël suñu esprit partisan ñu teg ko nele ñu xool fondamentalement de 1960 à nos jours lan moo doxul xam nga lan moo doxul mooy cette volonté que bokku d'acteurs politiques am suñu faloo relier wu complètement par rapport ak li nga xam ni moom moo nekkoon seeni ambition Macky Sall malheureusement fait partie de cette liste de cette très longue liste d'hommes politiques yoo xam ne dañoo jël reniment def ko comme point d'activité politique te mënoon na ñàkk loolu moo tax doyen mënuma d'accord ak sa analyse on ne peut gérer un pays sur la base d'une tyrannie tyrannie judiciaire tyrannie économique tyrannie politique tyrannie même boo xam ne ne que maintenant bu bees la mooy on te soupçonne tyrannie d'opinion amatoo liberté wax li nga xalaat Allez Youssouf merci euh, Charles